ci ginnaaw oto bi booy pousse leen nii waa mais Zors naa la. maa lay fay. rek. léegi gis nga escorté sa waay. gis nga de ñëw jàppale si rek. bëgg ndam rek. ndam li dina yomb ak Eumeu Sène ak Modou. waaw am ndam rek. dina yomb. ah dina yomb kay. waaw comme bee paase rek. billaahi. Modou ngi nanuy dugg si Talla Ndiaye cey bi revanche ànd ak Baba Serigne Ndiaye papi dawal oto bi Modou ngongu Talla Ndiaye ci 4-4 bi Modou Lo bu rok énergie Amina sa mbër maa ngi di dugg si Cap Rouge Talla Ndiaye xam nga Cap Rouge Talla Talla Modou Lo Cap Rouge la sol Talla doo mu wëral loolu taala kab bu ruus taala kab bu xonq taala njaay ee eh, mbaxana ma daa ruus taala waxoon naa la ko lamin loo seet looti bi seer bi euh, morso bi morso bi morso ban laati morso bi la rango tey moom la am wax nga dëgg lamin morso ba ay bagaas taala Modou Ngongu ndeysaan man de tey li mu rango am na lu mu rango de taala ñaari kabiru seetlu nga loolu. Babacar am na leneen loo seetlu loolu. Babacar ah li ma seetlu mooy li mu de gis <laughs> man day rangaay bi jaaxal na ma man Babacar. man de am na ma ko daan xàmmee rangaay bi. rangaay bi daan naa gis Eumeu Sène di ko rango. ah ba combat bi commencé léegi moom la daan rango. tey nag laay gis Modou di ko door a génne. xanaa da ngaa sàcc. mbaa bokk ñuy kër. est-ce que sàcc ko. mbaa Modou sàcc ko. <laughs> est-ce que sàcc ko. ah gars yi dégg naa mbir mu lakkale la nag. saa ñu may ay ruq dégg naa. dugg ko la Modou Lo. boo demee daa sàcc ci suuf. <laughs> nee na tekk nag. gars yi dinañ Modou la mel. dafa mel ne amul benn stress ni nga koy gisee. moom ci loolu lay dox de waaye ana ma seen borom taay si nga. ah ñëwagul. ma ñëwal kon Modou yegg si na de. bu ñëwee daal bu ma gisul li mu li mu li mu ràngoo ma xam ne rek a waaw bu waaw bu bu bu waaw loolu leer nga wax nag xoolal ma Moodu gaa yaa ngi noonu wër ko de ñoom sors xam nga sors mële fekk Serigne Ndiaye ngongu taala li ma la wax ci mbaxana yu xonq Talla Ndiaye seen naa laadum roog énergie dafa complet laadum laa seen Talla kii rakku Modou la xam nga ne kii taxaw moog Modou bokk ndey ak baay maa ngi lay ziar naka yëngu yi. delloo nga jàmm. sant yàlla bu baax ak Modou mag. Modou Modou moom mag sama grand la. yaay caat mi. non du du ma caat. lu ngeen nar a defante ak Eumeu Sène rakam la de xam nga man yooyu laay feeñal. papis di takkal. laa ilaaha illallaah moo doog papis ñaari doomi nday lañu nag seen diggante daa yàgg mu ngi ko koy takkal de papis a ngongu am na ku ne ca ginnaaw oto ba. da ko gis nga reetaan ya mu ngay ree de taala yaa ngi ree man ci ree laa dëgg baaba tex tex ñuy ree taal <laughs> ka woyoon loolu baaba ngeen di ree àll sax yal na ko yàlla yërëm ree di ree di ree man sax damay ree waaye nañu ree kon <laughs> laay ngi ne le baaba laay Pythagore laay ree nga ci équipe nationale waaye taal félicité Sadio Mané ak ñoom xanaa laay mën naa wax source moom wax na léegi laay ci loo ne sëñ Babacar maa ngi ziar lu bari maa am nga jàmm waaw ah, macha allah sant yàlla bi laay borom lujum yi de laa ko tuddee moom moo dëkk fa ñuy béyee lujum yi <laughs> day tooñ tooñ kat tey de gis naa Modou ñëw ci beneen facette ak ci beneen ñëwin parce que dañu xool combat ba mu débuté ba tey buy ñëw signature du ñu gis lu mburum gàllaaj tey nag gis nañ ko morango xanaa day door dugg ci làmb ji wala. waaw mais macha allah comme làmb la comme làmb yëpp lii combat royal la nekkul combat boo xamante ne bii combat bu nuy caaxaan na la combat boo xamante ne bii dañ koy waajal ak suñuy mbokk comme ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu si ndam rek ah ñu jël ndox du bàyyi yoonam ah, man loolu laa gëm ah. dana woon ku ko dóor yet bi abal ko mu fayu de. ndox du bàyyi yoonam déggoo ma de. Ah, ndox mi day jaar fu daan jaar. kon lu koy kanal du nga yaakaar. kon jaaroon la ñuy jaaraat ndox de. bu soob yàlla suñu borom ci kàttanu yàlla suñu borom dinañ ko daan jël bu rëy jël kuréel bu soob. yàlla nañ ko fekk te tal. allahumma amina. Ah. gaa yaa ngay waxtaan ba tey de ak Mor Cissé waa buur géwél nag xam nga boo jëmee ci combat royal bu toll nii concentration gën a wër ta yow buur waaw parce que bii nag couronne roi de sene bi daa tege te ki mu koy bëyal buur da koo muru da koo daanoon ay eh, Madoune Diouf waaye Madoune dama ne couronne roi de sene la ñuy xëccoo Madoune ah. te couronne nag boo koy xëccoo te ki nga koy xëccool daa yaa koo daanoon boo ñëwee fag nga yokk la nga defoon da nga ca yokk leneen ah. waaw du mën a ñàkk combat yi toll wala ay enjeu bu yow Madoune Diouf lii combat royal la Madoune ma dund yaa waxoon combat buur la soccu taala Ndiaye xanaa bi mu soccu boobu Dakar la wala boobu sum wala boobu alom wala boobu guy kii day xanaa Dakar la Madou Diouf ma Madou yéeg guddi de ah mbër wuur eh wax nga dëgg ak yaay ak laa dëkk Mbour naa la koo wax Serigne Ndiaye sol na papis génn na de Talla kaay xanaa papis war naa mën a cof dara réunion taal réunion sax badaa ngongu Modou Lo Junior Serigne Ndiaye kaay Taala kaay Talla njaay Modou Lo ci kaw pont bi wala Eumeu Sène ci kaw pont bi ci kaw pont bi la jaar di wàcc mu ngay yéeg mu ngay jéggi ci kaw pont bi lañ ko jaarale laa ilaha illallah oh, kii bëggul benn détail waa da koo géré ah weg na combat bi na lii de xool gaay ni ñu wàcce ci pont bi Talla Ndiaye gaa yaa ngay brestiku Talla gaa yaa ngay brestiku xoolal Joola ngay tuur ndox ma waaye Joola déet waay Talla Ndiaye Eumeu Sène xool ko ay Talla doomu Pikine le roi des arènes Modou Lo moom ca suuf la jaar ak oto waaye moom ca kaw pomba la jaar Lamine Pape Ngom mag ja ñëw na waaw jox na loxo jox na loxo mag ja Papa Ngom mbokk ndey koy jur ñu koy wàcca ndànk ndànk Talla tempo tempo Talla Ndiaye lii waaru lam Babacar man joomi naa Babacar ah man day lu ne daan naa gis waaye xoolal lii Talla Ndiaye xoolal lii wàcc tempo tempo ay Bour Gueweul Pomba da ngay wàcc de bés bee rëy bés bee rëy buur loolu Talla Ndiaye combat royal la Talla Ndiaye combat royal la ñuy bëre la Talla la ana Joola maa ngay seen Joola Papa Ngom ñëw na le Talla Ndiaye mag ja ëmma ngongu Papa Ngom ñëw na le gaa yaa ngi ko wër de gaa yaa ngi ko wër ëmma ngongu gaa yi wër ko ci kaw pont bi lañ ko jaarale day ànd ak moom ba ma seet boo koy papa moom ndeysaan ama seen a la yéege Talla ngaay papa ko mu ngi ci ginnaaw ñu ngi koy yéegal ñu ngi koy yéegal taala yéeg na ajal ngay sotti ndox ma esel la jaari yéeg mu ngay dem la ilaha illallah ànd ak suudu ak papa nga mag ja Landal Papa Ngom reena Eumeu Sène bari jàmm lool waay Talla Ndiaye day ree rek day ree rek Talla Ndiaye Talla li ngay jël doy na war de Talla hee Talla Ndiaye fu mu toog lay wër Talla Ndiaye xëccoo place xëccoo place Talla Ndiaye kooku toog place su Modou Lo toog mooy Ibou Laye Eumeu Sène nee na toog ah Talla Ndiaye lii nar naa doy waar waa Talla yi lan moo koy lijjanti léegi nag <laughs> Babacar léegi luy lijjanti leen ak Talla Ndiaye. loolooy problème bi nag. Talla nag problème ak yi nii nag. ñii ñoo njëkk a toog seen. lii mooy problème. moom moo njëkk a ñëw. ah Modou Lo la am na toog. moom moo ñë ñee ñoo njëkk a yaa ngi toog yor micro bi Modou Lo war a waxee. ak chaise bi mu war a toog. nee ko jëlul micro bañ naa waaw waaw Talla Ndiaye toogandoo lu xonk ba tey génnaat na ñu ngay ub ama seen ama ngay ree ama ngay ree ama ngay ree ama mii nag ñi mene Modou Lo de mbaa duñu fi jàppante mbaa duñ fi jàppante Pape Ngom a sëgg moom tim tim rakam am na lu ko Modou afaat amaa ngay ree amaa ngi ree coowo waxtaan wa ay kam yu Ndiago tim Papa Ngom Talla Ndiaye moom Eumeu Sène kay du moom du yomb moom du yomb de non fii du yomb fii du yomb lii coow am de coow mën na am fii de coow mën na wóorul lii dara wóoru ci na ci sécurité bi wax sécurité bi nañu wax Aliou Seras sa ngoog ñu koy wàccee Aliou lañuy la ñuy wàccee noonu wax ci lii Eumeu Sène daa ñëw toog waa fi mu yaakaar wala fi mu bëgg a toog boo xoolee Modou Lo bi mu ñëwoon tam fi koy bu lay jàppaloon la toog taala affaire baa ngongu de combat bi daal nar naa métti Talla Ndiaye bi combat daal mu ngi ndox Papis jox na ko ndox muy naan naan na benn guux delloo ko buusu buusu waat laa ilaaha illallah maa ngi leen di xool rek maa ngi leen di xool Moustapha Diop oh. Talla Ndiaye yaa nga ca de xool ama seen li mu moog Modou Lo Modou Kapoor soo yor Talla Ndiaye yet mu yor am lu ruus Eumeu Sène takk morso bu ruus ca loxo droite ba Eumeu Sène rango benn rabal Modou rango rabal waay lamba ngi waay waxtaan leen waa du ngeen waxtaan waay waxtaan leen waay waxtaan leen